رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته julit yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu déglu bi ngeen ñu déglu di leen jottali ay kàddu yoo xam ne ki koy wax mooy ibnu Cheikh Ibrahim ko nouvellement mu nekk directeur institut islamique El Hadj Abdoulaye Niass moo tax eh, waxtaan wi ñu ngi koy defee fii ci institut bi euh, li xew nag mooy démb ci nagani heure bi lañ doon dajee gannaaw boo xam ne dajee nañoo direction bi yëpp képp ñu ci nekk kilifa yi ci nekk yëpp di liggéey fii euh, gannaaw gi nag démb ñu dajee woon ak professeurs yi ak enseignants yi ak mboolem ñi nga xam ne ni ñoom ñooy liggéey ci wàllu jàngale mi dalee ko ci primaire bi secondaire bi ak ba ca kaw lu tax ñu dajee mooy présenté wu nuyuwanteeg ñoom saafuwanteeg ñoom wax leen ni tamit la nga xam ne moom la naa Babacar waxoon ne fal nañ ma ci seen kaw te ndaxam gënuma leen ëppale ma leen dara ci mbir mi léegi nag naka lañuy doxalee ñu ne ko yow lañuy laaj nooy doxalee mu ne danaa leen laaj ndax bu ma nekkee ci yoon. nu ngeen di def ak man ñu ne ko ni ñuy def ak yow mooy ni ñuy def ak ki nga fi uutu te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam exactement ni nga xam ne buñ gisoon yonent bi noonu lañ koy jàppale sallallahu alayhi wa sallam noonu lañ lay jàppalee parce que yaa toog place mu ne su ma juumee nag wàccee yoon nag ñu ne ko boobaay tamit ñu corriger la te lu mu laaj rek pare nañ pour def ko pour ñun ñëpp ñu tegwaat ci yoon fekk mi ngi toogoon ci fauteuil bi mu wàcc daal di sujur ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne teg na ma ci kanam mbooloo moo xam ne danañ ma surveiller waaye nag pour ma tegu ci kaw yoon la su ma nekkee ci yoon ñu jàppale ma su ma jumee ñu jubbanti ma fi mu ne laa soog a ñemee jiite mbooloo ñu jaayanteeg mbooleem ku nekk ci école bi nag ci charte boobu ci kaw yoon boobu lu ci li ñuy jaayante lan la mooy place bi place su xam-xam la parce que xam nga ne yàlla mu bind nit ñi bind mbindeefam yi Euh, bindi malaaka yi ñu foor lool ba àgg ci laa yaasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun ay nit lañ ay ay mbindeef lañ yoo xam ne mënuñoo may yàlla ñoom dañoo ni tëlee ci garanti ne man du ma du ma mënu du ma mooy yàlla ñoom noonu lañ euh, tële mooy yàlla ñoom noonu la leen yàlla mooñaale ñaalee te du ñu yegg yem ci ñàkk mooy yàlla mais lépp lu yàlla santaane rek ci la ñuy nekk guddi ak bëccëg ñooñu nag ak li ñuy foor foor foor yàlla dafa jàllar bi jël doomi aadama def ko ci seen kaw ne moom mooy xalifa moom mooy xalifa yàlla ci kaw suuf moom moomu moom doomi aadama jooju mooy kilifa ñooñu te pourtant moom malaaka yi waxoon nañ ko ne ko atajaalu fiha ma yufsidu fiha wa yufsiku dimaa wa nahnu nusabbihu bi hamdika bi hamdika wa nuqaddisu lak yow nooy jëlee koo xam ne nii dafay mooy yàlla di tuur deret di njaalo di def lu nekk nga ne moom moo war a nekk kilifa ki nga xam ne moom dafa tëlee mooy yàlla yàlla ne leen inni alam maa la maa la taalamoon yàlla lim njëkk a wane rek mooy moom ci boppam xam gim xam lu kenn xamut moo tax moom bu waxee kenn waru cee teg dara moom rek moo xam li baax ak li baaxu même ci début bi soo foogee ne leneen la comme xam nga ne moo la ëpp xam-xam comme wala boog moom mooy borom xam-xam yow doo boroom xam-xam kon war ngaa nangu lim la wax yàlla commencé wane Euh, important su xam-xam wane ne même moom sax moom yàlla li tax mu mën a nekk yàlla ci kaw nit ñi c'est parce que moom mooy borom xam-xam kon yàlla ci boppam yàllaam gi xam-xama ko téye moo tax mu mën a nekk yàlla ci kaw nit waaye gannaaw gi nag mu ne tamit kii ma bugg a def ci seen kanam te yéen du ngeen mooy yàlla te moom muy moy yàlla moom it tamit xam-xam laay dugal ci moom xam-xam boobu moo koy jàllar bi moom gannaaw bu mu nekkee ku néew doole ku ñàkk fayda kuy mooy yàlla xam-xam yëkkati ko ba mu mun a nekk ci kanam ñi nga xam ne duñ mooy yàlla jiit jiite leen loolu xam-xam foofu la commencé feeñ ba agsi ci yonent bi sallallahu yàlla ne ko wa allamaka ma lam takun taalam wa kaana fadlullahi alayka aziman man yàlla maa la xamal loo xamutoon te xamal gi la xamal loo xamutoon mooy firndeel ngëneelu yàlla bu rëy bi nga xam ne moom la la yàlla may yàlla boole ci sax nag ne Euh, li njëkk a wàcc ci alquran keroog bàyyi wax na ko fii bi ñuy euh, bi ñuy énigré école bi mu ne doy na xam-xam sharaf ak teraanga ni li njëkk wàcc ci alquran wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jàngal muy jàng di jàng di jàng yàlla jox ko ilmal awwalina wal axirina xam-xam woy njëkk ak woy mujj ba pare tegal ko ci ne waqul rabbi zidni ilman yow yàlla yàlla nga ma doole xam-xam kon xam-xam amul am na tàmbali mais amul fu mu yem amut amut lu gën a mag loolu waaye nag xam-xam boobu di dox ba ñëw ci keppaaru El Hadj mu tabax école am yore ay daaraam di jàngale samp ay kàngaam yoo xam ne kenn xamut lu seen dayu ci xam-xam lu dul yàlla waaye mu génnee ci biir ñooñu Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu addina bi di dox ba bàyyi taxawal école bi keroog biñ koy taxawal mu ne école bi tuddee naa ko sama baay waaye du dama parparloo du li sama baayee tax lu wut affaire affaire parparloo waye daf ko mérité parce que lim liggéey ci xam-xam amut dayo mom yoré na flambeau bi drapeau l'islam yëkkati ko ci kaw tasaare l'islam fu ba yar ñoo xamné mom mu ngi len doon ñaanal di sentu ci ñom ñu def li nga xamné mo mo def lu ëpp li nga xamné mom la def ci l'islam parce que l'islam dafa wara continuer mu ne am na colonialiste bo xamné ne dafa maa laaj ne ma wa yow sa école bi ana autorisation bi ma ne ko yow da ngaa juum demal nga wëri sama baay nga laaj ko autorisation école bi parce que moom moo tabax école bi ndax man ci école bi laa jàngee. kon nga déggee ci ne école bi mooy école maamalaaji bi waaye école maamalaaji boobu boo ko delloo ba ba boo ko toppee dafay dem ba ci école yonent bi sallallahu alayhi wa mooy rek ñi nga xam ne ñoo donnu xam-xam al ulama u warasatul anbiya ñoom ñoo donn borom euh, yonent yi war a taxaw ci tasaare xam-xam ak jàngale ko ak nangam nga xam ne imaam Assane nettali nañu ne bàyyi ci fu mujj dundam dem na ba mu yàgg mi ngi feebar mi ngi tëdd waaye nee na ko imaam doom man day suma delluwaatoon senegal ñaari yëf danaa ko def mooy danaa firiyaat xam alquran beneen firi boo xam ne dafay dëppoog dégg-dégg yu bees yi ma ci am waaye danaa waat suma école bi ba mu àgg foo xam ne nii fi mu fi ma bëgg mu àgg yëpp dana fa àgg loolu mission la kii ba kii la junj la boo xam daf koy wan ne ko su ngeen demee li li ma bëgg ngeen taxawuma ci mooy euh, mooy mooy mooy mooy mooy xam-xam école boobu nag tey jii nii yàlla teral ñu may ñu teraanga gannaaw buñ ci liggéeyee lu ëpp fanweeri at commencé ci jàngale fi ci primaire bi commencé ci jàngale fi ci ci ci ci ci maraaxil yëpp ba agsi ci kaw yàlla defi tamit ñu nekk fii nekk ci direction bi nekk ci euh, mëktëb bi nekk fu nekk fu ci école bi ba yàlla def Cheikh yi jël ñu def ñu ñuy adjoint am nekk fi di ko di ko jàppale ci école bi di ànd ak moom di liggéey gannaaw ñaar fukki at ci loolu yàlla def tey mu mu yokkal ko martaba def ko muy xalifa bi nga xam ne lépp lu bàyyi ilif ci kaw suuf tey moom moom moom ngay déglu moom moo war a wax ak yow loolu nag laaj mu am yoo xam daf koy décharger am ñu ko dénk ñu toogal ko fii ñoom tooguñ fii bi dañ ko fi toogal nekk ay bëtam di ko jox contrat mu leen di jox lim mu ñu def ko yàlla def tey jii jaam su bu si ñu tànn ko teg ko ci bopp école boobu loolu teraanga waaye teraanga la joo xam ne la ma waxoon xaajul Bichri ba ma demee Mauritanie ma ne ko man daal damaa gis ne eh, bu ma ñëwee fii ci Mauritanie yéen da ngeen may jàngal ne doomi bàyyi teraanga naam teraanga joo xam ne amut dayoo waaye nag responsabilité bi moo ëpp moo gën a war a moo war a war a géy moo war a gën a rëy teraanga ji kon loolu rek laa doon sant yàlla di ko waxak ak euh, élèves di ko wax ak élèves yi tey dugg nañ ci classe yu bëri fekkee macha allah benn égyptien boo xam ne vraiment jàngaleem dafa ma daf maa yëg yëngalaat sama xol ba ma nim sax delluwaat ci classe yi jàngale parce que xam naa ne sax am dana am beneen façon bu ñu ko defee mais danaa jëlaat élèves yi commencé at di seq ak ñoom xam-xam parce que ndekete da ngay jàngale waaye da ngay jàng jàng bi tey rek. ci bopam darsu bima ma 30 minutes jangé na ci lu beri lo xamné faté won nako wala gënd nako kon lulu moy moy moy moy sabab bi ñuy ñaan nak yalla képp ko xamné ne nga képp ko xamné ne xam-xam ñor na la waaye képp ko xamné ne xam-xamul islam ñor na la waaye képp ko xamné ne daaraay baye ji ñor na la ñu ngi lay ñaan awalan wa qabla kulli shay'in nga talal sa loxo ñaanal ñu yalla ñaanal ñu yalla lan ñu réussir ñaanal ñu yalla ñu baña tass yaakar ñaanal lañu yàlla fi ñu fekk yëf yi mu taxaw te màgg lool ñu ni tamit ñu teg ci kaw bañ xam ne ñoom xam ñun xam nañ lan la fondation di jëriñ parce que fondation bu nu dëgëree rek na la tabax bi bi tegu ci kawam war a gën a war a gën a amee doole kon loolu la ñuy ñaan yàlla awalan wa qabla kulli shay euh, yàlla rek a man euh, suñ ñu ñaanee lee yàlla bu ñu yàlla nangulee rek lépp ñëw waaye bu loolu passé yi tamit nag ñu ngi ñaan képp koo xam ne am nga xalaat bu rafet képp koo xam ne am nga dara loo xam ne yéene nga ko xam-xam yéene nga ko euh, daaraay bàyyi ji yéene nga ko nit ñi nga xam ne sa bëgg nañ seen doom yi jàng seen doom yi néew doole yéene nga ko ñi nga xam ne dañoo jógee ba Nigéria seen euh, di dugg ci ay oto di dugg ci war ay mbaam aksi te yaakaar a jëlee xam-xam ci kër baay rek moom la ñoo ñëpp ñi ngi ci école bi ak ñoo xam ne fii lañ dëkk ñoo xam ne dëkkuñ fi ñoo ñëpp képp koo xam ne am nga xalaat bu rafet wala nga am benn moyen wala nga am benn jumtukaay wala nga am benn dërëm lu tuuti tuuti boo xam ne mën nga pare nga pour def ko ñun ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi tàll loxo ñëpp dinañ am programme yoo xam ne dinañ ko wax nit ñi mu ñëpp dégg ko bu ko defee mu nekk loo xam ne euh, li may tëjee wax ji nag mooy école bi euh, bi ko Cheikh Nazir yoree gannaaw bu mu ci liggéey liggéey bu rëy bi mu ci liggéey euh, école bi bi ko Cheikh Nazir di yore mu ngi tala mi ngi tàmbalee ci ñetti classe ñetti classe la amoon li ci des ci ay ron garab lañ doon toog li ci des ñoom oustaz Ibrahima Ndiaye mii ak ñoom oustaz Baba ak ñii ñoo fi doon ñëw di jàngale ñoom oustaz Ibrahima Ndiaye di jàng ci suba gi di jàngale ci suba gi primaire bi bu buñ wàccee di jàngale euh, ak ñoom sacrifice fayuñ leen benn dërëm benn dërëm mosuñ leen sax jox paas ci loolu lañ jàngee ba école bi taxaw tey ba am binaayat yi ngeen gis nii yëpp dana am ku ko xeeb parce que ci sëkkalan ni mu mel nii bàyyi war naa am lu gën a rafet loolu waaye ku xam fi école bi tàmbalee ku xam yi tamit lim génnee ci ay nit ak ay kàngaam ay boroom xam-xam yoo xam ne fu ne ci àddina bi ñu nga fa ku xam ba léegi li mu yor ci nombre élève da nga xam ne xaj na euh, ñaaw ngemb rafet bëri la waaye bëri bi moom wax dëgg yàlla bëri bu bëri bu mucc ayib la loolu nag euh, keroog bi nga xamee ne ni nag toog nañ ba benn jëmi jamono euh, idaara bi ak ñi ko yore woon wax Cheikh Nazir na ko ah laaj xaalis nag mënta ñàkk il faut ñu laaj élèves yi dara parce que waxuma la dara waaye cré yi ñu war a jënd par jour rek ak siwo yek dangam ak dangam si fonds yi loolu rek rek rek rek sax budget bu mag la rawati nak li nga xamne mom lañ wara jox ñi fiy jàngaleeg parce que ay ñi di jamono bobo ay ay étudiant lañ woon ki ay élève ki ay xalé léegi nak ay borom kër lañ de nga ay borom njabot lañ sen njabot gi sax ay borom yu lañ nu ñu def nak bayina na leen moom d'accord ci ñuy ñuy laaj xaliss biñ ko wone nak ko mënul ñak parce que fay indi problème parce que mënuñ bus bu set ñu ñew laaj la te dafay demee neneen mu ne d'accord na foofu nag dama bëgg ñu bàyyi ci xel bu baax d'accord na ñu laaj waaye nag charte bi pour mu nangu ko mooy bum indi mukk bés ñëw mu am xale boo xam dañ naan ko doo jàng parce que amoo téeméer boo fayee bëggut a dégg ci école bii nit ku ñëw war a jàng mu mel ni dafa yonent bi sallallahu alayhi wasallam majlisam la jotaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la nga ñëw pour jëlee fa xam-xam ñu laaj la xaalis amoo ko ñu ne la doo jàng kon man suma ma doon ci yonent bi dafay dafay dañ koy remettre en cause te du ma ko dang loolu moom la moom la tax école bu mel noonu nag xaj na moo indi ñu bëri jàpp ne waruñoo fay ñu bëri jàpp ne nangam néew ji doole yi ñoo ci gën a bari baykat yi ñoo ci gën a bari loolu nag dafa laaj képp kuy taalibe bàyyi képp koo xam ne engagement bi bàyyi jël engagé na la képp koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñor na la tasaare xam-xamu dina ñor na la jàpp nga ne sa loxo war na caa dem te bu ñëpp àndee ku nekk def ci benn cent franc kon du doy de adina bi ñi bëgg a jàng ñëpp danañ jàng. xam nga bi ñëwee fekk nañ fa ay projet déjà yoo xam ne ni defar nañ ko ba pare ay maquette yoo xam ne pour yokk école bi la gën koo taaral projet yooyu moom moom dañ koy daldi di song rek ñu ngi ciy wax ak ay nit ñoo xam ne déjà. ñu ngi ci doon wax ak ñoom avant mais boobu ci ci niveau euh, suñ niveau fi mu ne nii nag euh, sëriñ bi mu ngi jox ndigal wan nañu mu ngi ci suñ gannaaw moom mooy seexul Mahad lépp luñ jublu rek moom bu àggee ci loo xam ne moom moo ko war a def rek moom dana ko def. kon loolu projet yi ñu ngi ci waaye nag liñ gën a jublu nag mooy dëgg dëgg école bu mel nii ñu fexe ba mu ñi fiy liggéey d'abord. loolu mooy suma man suma objectif numéro un mooy mboolem koo xam ne yaa ngi liggéey fii commencé ci gargien bu ndaw bi ba ci ki gën mag ci école bi wax dëgg yàlla nag ñu fexe ba jox la loo xam ne bu mata mënta matal sa àq yi tamit ñu wane ne dëgg dëgg kuy liggéey ci xam-xam di ko liggéey ci kër baay dëgg dëgg mën nga cee jëlee teraanga boo xam dana tax keneen xemem ëllëg ñëw jàngale ci école bi wala keneen xemem jàng arab loolu daal mooy li nga xam ne moom man moo ma gën a ñor te ñu ngi ciy taxaw ñu ngi ciy wax ak ay dit ñoo xam ne ñu ngi ñaan tamit képp koo xam ne loolu intéressé na la dëgg-dëgg nga approché e, e, e, kii bi euh, wala boog euh, bés dina ñëw ñu wax ko foo xam ne ñëpp danañ xam fi ñu jëm loolu mooy message bi nga xam ne moom laa doon yónnee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala raditu billahi rabba wa bil din